tekk wara daadi jàkkaarloo ca juge d'appel fukki fan ak ñett ci weeru septembre ci mbiru nak Range Rover ba nga xamante ne si nak di lamaraane Diallo moo ko daadi évoqué woon lëndi bi ñu génn rek ñoom ñooñee nak ñu ngi woon ca première chambre de la cour d'appel ba nekk ca dakaar ba tax sax mbir yi nak dañ ko di mujjee puus ba fukki fan ak ñett ci weeru septembre bi di ñëw ci li nga xamante ne si nag moo di retour de citations des prévenus bu sukkandikoo ci yenn ci këru taskati xibaar prévenu yooyu sax nag ñu ngi toll ci juróom benn bokk na ci kii di Wally Seck ak ancien international de football Ibu Touré Pape Massali Niang Serigne Mbacke Gueye ñu naan ko bay Fall ak kii di sannu Kébé wanted kii di Abdou Dieng ñoom ñooñu nag liñ leen di toppee bokk na ci association de malfaiteurs escroquerie faux et usage de faux dans un document administratif wante ak complicité de ses chefs ñoom ñooñu nag ñu yóbbu woon leen ca tribunal correctionnel 21 avril 2022 ginnaaw loolee nag ci lañ leen daal di libéré daal di dindi rek lépp loo xamante ne si moom lañ doon toppee juge bi nag daal di annulé li nga xamante ne si nag moo di procédure yooyee ndax nag enquêteurs yi ay notification information jëmale ko ci yooyu le prévenu ba tax rek heure yu njëkk yañ leen daal di arrêté nag ñoom dañoo daal di wax rek ni seen ay avocat dañ leen daal di assisté wante nag partie civile bi di Lamarane Diallo moom nag naka noonu ci la daal jël décision nag daal di defaat appel appel ca boobule décision ca mbiru Range Rover boobe sax nag loole nag dafa daal di yàgg ndax ca atum 2016 la woon nag ki nga xamante ne si nag moom oto bo sax ñu ko daal di gisee koy jaaxale ci ki nga xamante ne si nag moo di Ibou Touré waykat bi nak di Waly Seck moom daal di jëlaatoon boobule oto daal di koy jaay kii di Pape Massaly avant que rek moom moomee daal di koy jël daal di koy tegaat ci loxo kii di Gile Sey ci ak koppar goo xamante ne si daal ne toll ci vingt six million de francs CFA la ko daal di jaayee kii di Gile Sey moom moomee nag gannaaw ba mu xoolee rek xam ni problème bi nag dafa daal bi nag dafa daal di am ay problème